bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi dafa am lu ñuy wax julli fayfaat julli fayfaat mooy aljuma bu mujj ci koor ginnaaw bu ñu jullee aljuma ba noppi dañuy julli ñaari rakka tuddee ko julli fayfaat nee na ñaari rakka yooyu soo ko jullee da lay fabal day remplacer mboolee mi julli yi nga jot a faat ci sab dund loolu nag di loo xam ne bidaa la bidaa bu ñu créé ci diine ji loolu lu ñu sos la du lu yonente bi jàngale du lu saxaaba yi xam doo ko fekk ci benn téere du lu imaam Malik bu ñu tënku ci ngiram jàngale islaam lu mu xam le mooy julli yi nga xam ne faat na la ku toog at julliwul toog ñaari at julliwul toog weer julliwul na jéggalu yàlla mu tàmbalee julli jeex na lii la islaam di la yàlla mu tàmbalee julli bañ cee delluwaat ab tawbat ya jubb te jubb maa qablaha lii di tuub day effacer mbooleem lu wees ci say bàkkaar da koy effacer da koy faxas comme da ngay jéggalu yàlla tàmbalee julli ñaareel bi mooy ñaari ràkk mënul remplacer ci xel ñaari rakka kese mënul remplacer mboole mi julli ñi nga faat ci sa dund mënul nekk waaye nag koo xam ne moom dafa toog bis julliwul kooku da ko fay koo xam ne benn journée la toog julliwul wala ñaari fan ba ñetti fan ba une semaine kooku mun na ko fay ko borom xam waxee waaye koo xam ne ëpp na loolu ba xamatul ñaata la borom xam nee nañ day jéggalu yàlla day jéggalu yàlla tàmbalee julli bañ a delluwaat ci ñàkk julli lii rek la waaye kanta li ñuy def Sénégal tey muy julli fay faat Sénégal kese la am amul feneen amul feneen Sénégal kese la am lu ñu créé la rek ay nit ñoo toog imaginer ko créer ko doxee ko diine du noonu diine lu ñuy jëlee ci alxuraan la yàlla digle ko wala ñu jëlee ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle ko wala yonente bi ñamu jàngal bàyyi leen fi nga xam ne alxuraan ba muy wàcc ñoo ko fekkee muy saxaaba yi ñu koy jëfe waaye lii yàggul te Sénégal kese la am amul beneen dëkk bu bokk nag li nga xamante ni moom mooy bariwul bokk ñu koy def loolu Sénégal ñu ñoo si gën a siiw ñu gën leen koo xam comme loolu amul lenn lu ci wër doonte am na sax yenn dëkk dëkkaan yu ndaw yu koy def waaye yonent bi fa mu jógee bàyyi fa diine duñ ko sax def àdduna bi ñu bëri duñ ko sax def ko loolu bidaa la lu ñu sos la loo xamante ne amul fenn fu mu sax islaam dafa def yombal yombal bi mooy jéggalul nga tàmbalee julli jeex na lu tax ngeen bëgg a indi jafañ-jafañ wallahu alam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad